euh, après avoir été, été élu euh, homme du match. Mhm. Euh, mu gërëm jabaram gërëm gelam. <laughs> qu'est-ce qui s'est passé. voilà Pape Cheikh fële lay xewee fële la xewee Ghana. Euh, son nom c'est Mohamed Anas. moom Mohamed Anas dañ ko dafa doublé match bi dafa def doublé d'habitude boo doublé après da def interview post match. dañ lay jël interview wax la nga wax. joxe sa impression est mën nañ seetaan interview bi. Premiership Man of the Match, Mohamed Anas. Congratulations, Mohamed. I'm sure coming down here and making sure you walk away with something is a good achievement. But looking at the balance of play, I'm sure you could have won that game tonight. Uh, thank you very much. And I always wish to win one of this, And I appreciate my fans also, my wife and my girlfriend. Yeah, I mean my wife. Yeah, sorry to say. <laughs> I'm so I'm so sorry, my wife. Lizzo, I love you so much. Aya, I love you so much from my heart. Ne? So must keep on supporting me. And thanks for, for to come to the game. Yeah, we need the three points because the position we are, it's unfortunate, it's not good, it's not bad. But again, coming uh, uh, uh away and getting a point, I think is, is, is good for us. So we move on to the Eh, ci anglais la ko la ko la ko waxee mu gërëm euh, jabaram. Uh-huh. gërëm tamit gelam. effectivement est-ce qu'il est toujours en vie. Eh, eh, bien sûr il est toujours en vie mi <laughs> mi ngi mi ngi mais actuellement ci deux jours yi nii moo def moo def buzz bi moom li mu expliqué moo di dañ ko def euh, interview bi dafa remercier comme d'habitude da ngay remercier ñi nga xamante ñoo la gën a jege mu remercier jabaram juum remercier gelam teg ko ci. waaye bi dégg nga ko mu ñu wax dafa dafa dafa dafa dafa def erreur dafa def dafa dafa juum expliqué ne carrément ni dafa juum daal di continuer <laughs> lapsus révélateur bi oui lapsus loolu la ñuy wax walaay mais li ci gën a garaaw commentateur bi après dafa ni carrément boo moytuwul doo fanaan sa kër xanaa sa kër gel bi ngay fanaan yeneen ki ne ko non non du fa yem sax xam eh, la euh, fan la problème bi nekk yéen xanaa ñaan ngeen yàlla aussi seen seen seen jëkkër yi bu jot bu leen ba noppi gërëm gërëm franchement euh, gelam ki ci jàpp loolu ñaan ngeen ko yàlla n'est-ce pas mérité ah, ah, ñaanoo loolu alfi n'est-ce pas ñaan nga loolu kon boo ñibbisee n'est-ce pas ah? xadisim da wis ba pare léegi on va def tour de table jigéen yéen ñëpp kenn ku nekk wax ma bu doon ñaanuñu ko yàlla seen jëkkër moo def loolu gërëm leen devant tous les oreilles ba noppi gërëm gelam nan ngeen di réagir mairie ba ngi naan ndox balaa muy wax ok nooy réagir bu doon yow non moom du ñibbisi kon xam na ko ok d'accord mais bu ñu bisiwul kañ ngeen di gisantewaat. non du ñu gisantewaat. du ñëw daal parce que s'il tient à sa vie c'est qu'il revient pas. c'est devant tous les questions parce que bu ñëwee loo koy def. dama koy soode. ah soode si c'était toi euh, Didi. dama koy seetaan rek day dugg ma koy xool rek xam nga nee nañ silence moo gën a mën a rey nit. Mm. tekk nga ah, naan tekk rek. bu la baaloo nag li ngeen naan jabar ji waxal bu la fekkalee nag ma nekk ko lan nga defati. li nga gis <laughs> <laughs> nii laa lay tontu li nga gis ci télé Alphie <laughs> bu doon yow la nooy def. papa ménage xam nga da ngay wis ba pare soo ko jaar ak serpillère. waaw kër ga boo ñibbisee damay wis ba pare daal ci sotti dëwlin taxawee ne. bu dugg kër gi. naa def nii nag xaar. ok da ngay yoraale ceinture. yoraale ceinture nag Pape. bu dugg see daanu. j'ai vu ça sur internet. bu daanu da ngay daanu bëri doo jóg. après nga def ko lan nga koy daanu gi nga koy ceinture affaire à suivre. mais ab ah <laughs> ok d' accord ay sëñ Faye Fall. du ma wax dara. doo ko wax dara. non da nga koy seetaan. Mm. bàyyi ko ak yàlla quand même. da nga koy baal. non du question bàyyi ak yàlla mais da nga koy baal. c'est le c'est le commun des hommes. ok si c'était toi Bijou. man xaw sa ban réaction laa la a am <laughs> c'est-à-dire que réfléchir naa ci ba sonn mais j'arrive pas à trouver réaction boo xamante ne euh, dina doy daal. après Henriette son visage dafa mel ni man dara safu ko. <laughs> non non ma ne kii kii dafa mel ni Pape Cheikh bi ma ko gisee ma ni kii de xam naa jour bu ngéew. dara safu <laughs> Pape Cheikh mais après bu dee noo ciy génnee. mais yow pecc ci rëy li koy daj ci man laa koy may li koy doo daaneel de li koy li koy daaneel ci man laa koy may doo daaneel li koy dëgër non sérieusement laa ko lu tax nga jongo ma lu tax su ma la tooñee ngay gën di mer ngay gën di jongo ma loolu laa koy laaj mais c'est que lii en fait bu ñëwee loo koy wax tu dirais da ngay toog di ko xool ci kër gi naa ne ko non sama benn sama benn coéquipier laa wax mais voilà dama la tontu sax il n'est pas marié gelam noonu waxtaan xam nga waxtaan boobu juste après bu may jël interview loolu moo nekk parce que gelam parce que gelam sama gel la quoi sa gel xarit sa gel la donc yaay yow vrai wooyu mooy yow parce que ay waxu amoo il n'est pas marié sama sama sa du ma nga li nga toog di expliqué nit ki ne tekk di la la ah. Ah. c'est-à-dire nga ñëw ko xool. Hmm. defal taaj reer toog di ko xool xam boobaa day day ndax day naan kii dégg na dégg. nga def na ko si benn théâtre nga jàpp ko gerte bu boobaa du lekk sax lekkal non yow doo lekk man suur te fekk defoo dara ci lekk bi suur vraiment. mais lekkal il est malheureux je pense il doit être malheureux euh, normalement tayu ko voilà la ak ah, pardon non ma femme. je t'aime tellement. continuer phrase bi waaw foofu la gën a yàqale boppam. mais foofu dafa waroon continuer ma femme c'est ma c'est ma meilleure amie. meilleure amie. <laughs> frère la c'est que bu doon <laughs> voilà euh, internet après bi mu gërëmee jabaram ak euh, gelam et puis a quelqu'un d'autre qui a été suspendu à vie mhm. euh, de la FIFA waaw moom Joseph Lamté fàttaliku nañu mooy arbitre bi nga xamante ni moo arbitré woon match Afrique du Sud Sénégal le 12 novembre bi ñu génn Joseph Lamté démb lañ ko ñi nga xamante ni mooy FIFA daal koy suspendre à vie parce que ah. dañoo suspendre match boobu dafa amoon lu ci lu ci ñuul maanaam dafa amoon corruption loolu léegi nag enquête bi mi ngi mi ngi parce que mën nañ dem ba ci ñi nga xamante mooy fédération sud-africaine de football ou bien dem ba ci match boobu nga xamante ne nañ ko dàq suspendre ko daal jox ñi nga xamante mooy Sénégal victoire mais yeggaguñ foofu liñ gën gën a jàpp après quest dafay dafay changer ci ci bi nga xamante Sénégal mi koy évoluer parce que Sénégal défaite boobu la am moo tax mu jël troisième actuellement mm. mais fu noonu match boobu ñu ko suspendre mais li ci gën a am solo moo di li nga xamante ne moo wadd mooy xibaar bi moo di ki nga xamante ne mooy Joseph Lamptey di ghanéen bi nga xamante ne moo doon arbitré match Afrique du Sud Sénégal FIFA daf ko daal di suspendre à mais avant cela avant cela CAF ko suspendre trois mois yoo nga xamante ni mais démb moom li nga xamante mooy FIFA li muy li yaatal moo di li joxe comme xibaar moo Joseph Lamptey euh, suspendre nañ ko à vie mën a euh, arbitrer match bi nga xamante ni dootul bokkati ci benn compétition xanaa muy organiser ay petit camp koñam euh, di fa donc c'est ça l'info il a été suspendu à donc par la FIFA mhm. prolongation am na le Sénégal mm-hmm. mais euh, Baba Tandian ak beneen international. Mm-hmm. Euh, wax nañ ci. voilà ki nga xamante ni moo fi nekkoon président fédération euh, de sénégalaise bu basket di Baba Tandian joxe na ci xalaatam ci match bi nga xam Sénégal am na ko ci week-end bi ñu génn fële ca Bamako mu daal di ñu daal di jël troisième Sénégal am fa participation boo xam ne xaw na doy waar ki nga xamante ni mooy viandooy wax nañ ci expliqué nañ ci joxe nañ ci seen xalaat waaye li ñu ci gën a jàpp moo di mobilisation bi nga xamante war suñu gaynde yi neen mën na nekk trois victoires yoo nga xamante ni mën nañu permettre ñu qualifier ci afro basket bi mën nañu seetaan élément bi te ñëw li ci gën daal mooy gars yi toogaat xoolaat li ci attaque bi ak li ci défense bi daanaka euh, metti na ñëpp nag mais li am am na ba pare léegi na ci ñëpp jàpp comme sa semaine bii nii euh, à dakaar la ñun ñooy recevoir équipe yi et puis ak yenn renfort yi gëm naa ne bu ñu liggéeyee bu baax sérieusement ak correctement euh, war nañ see mën génn. waaw renfort yi moom faaw mu am faaw mu am parce que euh, soo xoolee bu baax gars yi ni ñu doon baskette nga xam na ne bon euh, comme lu ñuy faral di wax leader leader amul kenn ku ko ci wane parce que ku ci nekk bu nekkee di jël bal. di dem ne noo man maay régler problème Sénégal lool du dox loolu du dox te loolu ñëpp ko ñaawlu même ñi xamul basket sax dañ naan waa fii ku ci nekk day jël bal sànni ko man mii waxuma ko mais ñi xamul basket ñoo ko doon wax sàkkantuma lax man mi nga xam ne jaar naa ci léegi nag euh, li ci li ci li ci nañu nañu rafetal rek nañu rafetal te yaakaar na ne ñetti match yi di ñëw war nañ koo mën a gañe loolu kay daanaka man li ma leer ba leer état bi day soutenir équipe bi loolu moom dafa ma leer fédération tam il faut mu gën si jàpp euh, staff technique bi joueurs yi ci boppam et puis am na kenn ku ma ci xam sax ci biir Assane Badji moom tàmm na di remobiliser gars yi parce que pratiquement rôle boobu la yàgg joué xam nga mooy daan yore pusoom di ñaw yenn yi su daan am donc ñooñu ñëpp lu supporters yi ak ñi nga xam ne ne sax xamuñu basket mais ay sénégalais lañ parce que lii Séné mbirum Sénégal la quoi na ci ñëpp jàpp et puis ñu ñaan suñuy ñaan euh, daanaka génn ci quoi. li ñu war a def d' abord un renfort dafa war a ñëw dégg naa renfort ñu ñëw c' est bien le public bi dafa war a mobiliser ñëw ñu xam ne que Sénégal dafa war a gagné parce que bu gagnewul du dem championnat d'Afrique parce que white card amatul donc amul amul ma perte nga xaar parce que Sénégal grande nation de basket la fii baa ne boo non Sénégal il faut mu bokk ñu yónnee ko white card amatul donc Sénégal dafa war a euh, public bi dafa war a kolewu Euh, ñu wax maître xam na parce que ci comité supporter yi la bokk donc xam na na dem indi jëmbe yeeg tam-tam yeeg tama yeeg yëpp ñu ñëw ci stade bi xurumbal xumbal Sénégal gagné ñetti match mi jàmm ne ñooy voilà entre autres euh, Baba tanja moom jiite woon na fédération sénégalaise bu basket ak ki nga xamee ni euh, mooy Viondooy ancien international joxe seen ay réaction c'est vrai que comme on a dit hier professionnel yëpp a mer mhm. ci lajjik sunu sunu sunu sunu gaynde yooyu voilà Pape Cheikh laj neexul Sénégalais parce que Sénégal dafa am lu muy représenté ci basket fii ci Afrique te xam nga lu ko ni ko Baba Tandian waxee mooy mënuñu dëkk ci white card maanaam di ñu invité te loolu sax léegi amatul léegi li ci am solo moo di da ngay da ngay dañoo mën a ci terrain bi la ñuy qualifié te bu ñu qualifié wul daf ñuy permettre tamit du ñu mën a participer ci nga xamante mooy euh, euh, wax ni lu rafet ci image yu ci surtout ci basket bi donc li ñuy lancé appel mooy mobilisation ci week-end bi mooy retour bi fii lay amee ci Dakar Sénégal gi ñëpp ñëw jàpp jàppale ñi nga xamante ni mooy suñu gaynde annoncé nañ ay renfort ñi nga xam dinañ ñëw jàpp ci équipe bi pour rek euh, trois matchs yi ñu bëgg mooy victoire bi trois victoires yoo xamante ni dinañu permettre ñu qualifier comme ni ñu koy waxee remontada c'est possible. voilà c'est possible et puis on finit euh, euh, ak souhaiter joyeux anniversaire euh, Ronaldinho tey la am 36 ans. voilà mu ngi juddu 21 mars. xarale maintenant